réew yow ka kii million pour waawa ɓamtaade man duma duma doon koo xam ne damay duma def lu ma wax li nekk jaaraama kontaan naa si ni leen inchaallah su neexee yàlla su ma amee ndam seen xol dana sedd o wi so allah jaɓii so heɓii ko ko maa ɓerde mon ɓuuɓonon fof bu ma mel ne Macky Sall mi nga xam ni nee na la dëkk doomu Fuuta la defarul Fuuta ah! ndar dëkk ndar dëkk waaye dinaa ñëw fii Fuuta defar Fuuta ba waa Fuuta seen xol seen ñëpp ñaanal ma biyo ko fuutanke taw ala ko waɗanta fuutankoɓe kanko ko darnajo kono noon so allah jaaɓi kala nde o heeɓi ko yiɗi ko mawo welti ɗon ha belto ɗon Hey, président mu ne na nga toog tuuti wax nga ñoom it bëgg na nga delloo njukkal tuuti waaw bisimilah baax asalaamaaleykum bandiraɓe abdoulaye wadde nde fuɗɗotonde o waɗi ko garage ndendoren to o heɓani kene ɓuuri yiɗi joyo o rewi ha allah waɗi mo président oɗon allah tigi ɗo dañi ɗum ɗo jagondema allah yo allah waɗimo président dëkk bi trois voix la fi amoon ñuy dem ba yàlla fal ko président yow it ñaw nga nga commencé ak lii ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale ba nga nekk président ba ñaar fii ñu féete ko ensemble Ibrahima développé dëkk ba o wii gure tokose ɗe programme makko gure fof omo anni hokkude ɗum téeméeri million pour waawa ɓamtaade ne man duma duma doon koo xam ne damay wax duma def lu ma wax li nekk fa séene naa ko def o wi o wonaa kaaloowo ko waɗataa kala ko haali koko anniyi waɗde jaarama kon naa si ñoom o wi on jaarama o weltima e mon no feewi ni leen inchallah su neexee yàlla su ma amee ndam seen xol dana sedd o wi so allah jaɓi heɓi ko dartar ko ma ɓerde moon ɓuuɓonon fof duma mel ne Macky Sall mi nga xam ni nee na dëkk doomu Fuuta la defarul Fuuta ndar laa dëkk ndar laa dëkk waaye dinaa ñëw fii Fuuta defar Fuuta ba waa Fuuta seen xol sedd ñëpp ñaanal ma ɓiyowo ko fuutanke taw ala ko waɗanta fuutankoɓe kanko ko darnajo kono noon so allah jaɓi kala nde o heeɓi ko yiɗi ko ma o welti noon ha belto ɗon a jóg tuuti wax nga yoon it bëgg nan la delloo njukkal tuuti waaw bisimilah baax eh, assalamualaikum bandirat abdoulaye wadde ne futotonde o waɗi ko garage ndendoren to o heɓani kere ɓuriɗo joyo o rewi ha allah waɗi mo président oɗon allah tigi o dañi ɗum ɗo jagonde bi trois fois la fi amoon eh, ñuy dem ba yàlla fal ko président yow it ñaw nga nga commencé ak lii ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla jàppale ba nga nekk président ba ñaar fii ñu féete ko ensemble. Ibrahima